yow kat yàlla yow yaa yaa ma gën a tedd ci yàlla di la nga man fi moom mënuma ko fi moom waaye ba mu yéegee ba dem kaw asamaan yonent bi fu ne ma nga fay xool rek ba jibril ñëw fekk yonent bi di julli tisbaar loolu am na ñu ni weeru rajab la mu julli tisbaar ba am ñaari ràkka beneen ñaari ràkk yu mujj yi jibril ñëw ni ko yàlla nee na nga wëlbatiku jublu bàyyi baytul maqdis bi ngay jublu nga jublu ca kaaba ga léegi am nga ci ndigal yonent bi daal di orienté wu ci biir julli gi daadi mottali ñaari ràkkaye ci beneen xibla gi te mooy ca booru kaaba ga ba loolu amee nag coow la am bare na ci ñaari côté naafiq yi nee nañu kii xamul lu muy def day def lii ba yàgg mu def lee yahood yi daani ah léegi kon kii bëggul jàmm ndax lu tax tey mu wal ñu ko di jublu beneen xibla te bàyyi suñu xibla bi mu doon jublu loolu nag la la alxuraan di nettali naan sa yaquulu xas naa wax a sufahaa u way deseña minan naasi te bokk ci yahuud yi ak way bokkaale ñi ni yonent bi maa wallaahum lan moo leen wëlbati moom yonent bi gaayam yooyu yéefari yahuud yi naan lan moo leen wëlbati an qiblatihim ba ñu bàyyi seen xibla allati ba nga xam ne kaanoo nekkoon nañu suñ daan julli aleyha di fa jublu te mooy baytul maqdis yàlla tontu neen xul buñ la ko laajee nee leen lillaahi aji nekk la di ñeel yàlla almashriqu penku wal maxribu ak sow lépp yàllaa ko moom tekkiwul ni fépp lañu war a jublu julli de waaye fépp yàllaa ko moom kon fu mu la jublu loo foofa nga war a jublu te yàlla itam bu lay orienté xam na fi mu lay jubbanti moo tax mu teg ca ni yahdi dana gindi mom sunu borom man ya saw ku ko neex te su ko gindee kookee du ko jubale fenn ludul ila siratin da koy gindi mu jëm ci yoon mustaqimin wudi aji jub te moy diine l'islam kon fam ko jubluloo fofa la kon xibla bobu mo gën ci xibla yi waye itam ki gën ci nit ñi lanu jullilo wëlbati ko mu jublu fi gën ci xibla yi andil ko téré bi gën ci téré yi muy alquran may ko xeet wi nga xam ni moo gën ci xeet yépp moo tax yàlla ne wakasaalika naka noonu ñu la jubbantee yow yonent bi nga jublu ci xibla bi gën ci xibla yi jaal naakum noona lañ leen defe nun yàlla yéer yow muhammad ak saw xeet ummatan ngeen di xeet wasatan wi gën ci xeet yi li tàkkoonoo ngir na nekk suhada adi way seede ala naasi ci nit ñi lan ngeen di seede mooy yéen xeet wi li tax ñu ngeen gën ñu def leen ngeen gën ci xeet wi dañoo bëgg bu ñu taxawee péncum yawmal qiyaam yéen ngeen d'accord ci ni yàlla yonent yi mu yónni woon yépp ñëw nañu ci xeet yi ñu leen yónni woon yépp ngeen seede lool wa yakoona ba tey nekk arasulu yonent bi shahidan di mbirum nekk muy aji seede aleykum ci yéen mooy yonent bi seede ni yéen itam mboolem lu yàlla yónni woon ci yonent ak moom liñ ko yónni woon jotal nañ ko ci yéen yonent bi seede loolu yéen ngeen seede ko yàlla ne wamaa jaal naa mujjalunu alxiblata xibla ga allati ga nga xam ni kunta nekk nga yow yonent bi aleha di julli léegi di ca jëm te mooy kaaba ga defuñu ko illaa li naalama lu dul nañu xamal leen yéen man ana kan ya yattabiw mooy topp arasoola yonent ba mi man ñu ràññee ko ka nga xam ni yan xali bu day wëlbatiku ala aqibayhi dellu ca kéefër ga mu jóge woon dégg ngeen wax ci yàlla neen li tax ñu wëlbatiloo yonent bi ne ko wëlbatil xebla gi jëm na le yàlla bu ne li naa na alama ngir nanu xam mais yàlla xam na ba noppi mais ñun kay ñoo xamagul yonent bi moo xamagul ak i gaayam yàlla ne ko nag bu ñu wëlbatee xebla bi mu jëm na ñu la bàyyil baytil baytil maqdis bi ngay jublu bu bul ti baytil maqadis léegi jublul ca kaaba ga yàlla nee na su boobaa da ngeen xam ñan ñoo gëm yonente bi ndax ñi gëm duñu hésité dañuy koy daal di topp ca loola mais ñi nga xamante ni bii ni gëmuñu ñi ay naafeq lañ doon sikki saaka daañu xaw a déng-déngi te loola amee loola am na feeñ na ñuy feeñ na bi ci des itam am na ñoo xam ne ñoom it dañ daan jublu foofa rek di yëhoot nekk ca la ñu nekk ñëpp ñoo bokk fu ñu jublu kon doo xàmmee gaay waaye ñoom ñi nga xam ne bokkuñu woon sa ginnaaw ba nga demeet fañ doon julli di jublu ba tey foofu lañ jublu kon comprendre comprendre nga mu ne nag waaye naka jublu googu ñu la jublu foofu foofu wëlbati loola xibla gi nga jublu kaaba ga kaanat nekk na la kabiratun di lu diis lool ci kaw nit ñu ba nga ko defee metti na jaaxle na ñu bare jaaxle nañ ca ilal la si na lu dul gaañ a nga xam ne hadaa jubal na leen ñoom allahu yàlla ñi yàlla may njub dong ñoo ca jaaxlewul dañoo daal di dem rek fekk si la ci la nga wax beneen problème am ñu daal di koy pose benn question ni ko waaw ñi nga xam ne noo doon julli di jublu fa yahood yi jublu avant ñuy wëlbati xibla gi di ko jublale màkka ñooña da ko doon def ba ba yàgg ñu dee ci xare ya jotuñu ko fekke seen julli ya nan la demee léegi yàlla tontu ni wa maa kaana ñekkul jaaduwul allaahu yàlla luy diyaa ngir na sànq imaanakum seen julli ga ñu doon julli di jëm baytul muqaddas yalla neena julli yoyu du nil du nil de ngeen mune nala naka yalla la giñ kon la rahimun yërëmaa kon la binnaasi ci nit ñi yalla ku ñeewant nit ñi la ku leen lay doon mo upp doole rahim kon lan motax ta te bu daa yàlla daan wax yow ci wolof sax bo doon wax daan ni président de la république ñëw na ñuy teertu nga ni président agsi na daanaka booy waxati premier ministre ñëw na kenn dootu la dégg la gënoon ci wax mooy nga ni premier ministre agsi na nit ñi naa ñëw na di yéemu nga ni président moom ci jëmmi boppam agsi na kon lan moo tax mu jiital li ëpp doole mujj li nga xam moom la ëpp doole raoof mooy ñeewant rahim mooy yërmande ni ma ko mën a tàqalee ci wolof ngeen dégg ko mooy nga am sa doom sa doom bi nga am mu am ay góomi bopp góomi bopp yi nag nekk ci boppam metti lool nga xool ko bi nga ko xoolee bëgg góom yi wér nga woo ko ne ko kaay ma wat la waaw bi nga koy wat loola ni ko kaay ma wat la pour góom yi wér loolu yërmande la walla du yërmande am déet ah yërmande la xam nga danga koo yërëm ci góom yi mais bi nga ñëwee di ko wat yaa ngi yor lancat gu ñaw kawar gaa ngi ci biir jaxasoo góom yi mais mënuloo fexe ba dindi kawar ga ndax ñe bañ nga lancat gi di laal dara ci góom bi di ko dagg loola mooy raoof mooy loola mooy ñeewant woo gi nga ko woo pour tàqale ko góom yi loola moom mooy tudd yërmande waaye bi nga koy jéem a wat munoo fexe ba wat ko loola nga yëg ci sa xol mooy ñeewant loola mooy raoof dégg ngeen wax ci kon raoof mooy ñeewant rahim mooy yërmande li tax nag yàlla jiital ko mu jebee mooy way wi ma xooma du woy sax ñu baal ma mooy fiqra daaneelu aay la bëgg mu maase waaw mm-hmm. moo tax mu ne raoofun rahim dégg nga yàlla ne ko xat ci dëgg-dëgg naraa gis nanu nun taxallu ba wàcc ci ka sa wëlbati kanam gi fi samaa yi nga koy jubale ci wàlli asamaan yow yonent bi gis nanu ngay téen di xool fu nekk pour di xaar yàlla kañ la lay jox ndigal nga walbati xibla bi booy julli jëmee ko ca kaaba yàlla ne ko fala nu wàlli yan naka daanan la wëlbatil danan la oriente xibla tan xibla goo xam ni tardaaha da nga ca kontaan te loola mooy fa wàlli ñëw na sax wëlbatil wajhaka sa jëmm ji sataral masjidi ca wàlli néeg ba alxaraami ba di bu ñu ormal ta kaaba ga ndigal la ñëw na te mooy kaaba ga falan walliyannaka xiblatan tardaaha fa walli wajhaka sataral masjidil haram fa walli wëlbatil wajhaka sa jëmm ji wajha kanam lay firi waaye yàlla léeg mu jël dara lépp mu tudd ca dara jëmm ji lépp mu tudd kanam gi ndax lan mboolem luy foor ci doomu aadama kanama la gën a foor kanama la gën a foor mu daal nag fa wàlli waj xak waaye yar jëmm ji lépp la wax te kanam mën tawal batiku jëm fenn bàyyi fa jëmm ji te yonent bi sax daawul geesu faf ndax li tax daawul geesu mooy jëmmam bu daan am soxla ci ginnaaw bu tourné jëmm ji léppay ànd tourné bi ci des mooy kuy geesu dangaa bëgg a xam li ci gannaaw yeneent bi daawul geesu ndax ni muy gisee ci kanamam noonu lay gisee ci gannaaw yaraa bi zalma nuurul aalamiina kama ala diyaa in yaraa saddix wala taxim daawul taal làmp itam ndax làmp li muy for for ba ci leeraayu jant bi ci leeru yonent bi lañ ci jële bind ko bind ci jant bi leeraayu làmp yi ci leeru yonent bi la kon soxlawul seenu leer yonent bi ni mu daan gisee ci lëndëm noonu la daan gisee ci leer ndax leer ci moom lañ ko bind lëndëm ci moom lañ ko bind mi ngi noonu luñ ca dugal la rek nag diggante bi ci diggante bi yàlla ne fa wallil yow yonent bi wëlbatil wajhaka sa jëmm ja sataral masjidi ca wàllu néeg ba alxaraami ba di bu ñu ormaal te mooy kaaba ga yàlla wàññi ko wax a wi yépp ni waxay suma kuntum fu ngeen fi mën a nekk di julli fa wàlloo na ngeen wëlbati na ngeen jubale wujuhakum seen jëmm ja satarawo ca wàllu néeg ba di kaaba yàlla ni fu ngeen mën a jublu léegi fu ngeen mën a nekk bu julli jotee wëlbatiku leen wuti ca kaaba ga kon yow yaay jublu penku waaye am na ñoo xam ne bu ñuy julli soowu la ñuy jublu ndax ña dëkk ca gannaaw màkka su ñuy julli dañuy wan gannaaw penku boo demee ca kaaba ga ñépp dañ koy wër côté bu nekk kanam jublu na fa ndax teddaayu néeg ba rek ndax li yàlla ni fa walloo wujuhakum satarahu mel na yàlla dafa tontu ñiy sikki sàkka ci yonent bi naan lu tax mu jubale kanam gi féeg faaka yàlla ni ñoom xam nañu lu xew way na la si ne naka gaañ nga xam ni oto joxeef na leen alkitaaba tawraat ba la yàlla moo na ñoom giñ naa ne xam nañu ñoom ñoo gën a xam ni ànnahoo naka wëlbati gi yàlla wëlbati xibla gi jëme ko ca kaaba ga alxaqu mooy dëgg gu sax ga min rabbihim tukkee ci seen boroom nañu jàngewoon woon melaw yonent bi ci seen téere ya bañ noona lan jànge woon ni yàlla dana wëlbati xebla gi jëme ko foofu waaye wama laaw déet yàlla bi xaafilin muy aji bàyyi amma yaamaloona wëlif lépp la nga xam ne yéen a ngi koy def yàlla du ca bàyyi dara mu niil weddi gi ñuy weddi xibla gi ak leneen la ca des lépp yàlla xam na ko te du ca bàyyi dara yàlla nag am lu mu wax ak yonent bi yonent bi wëlbatiku gi mu wëlbatiku ca xebla ga bàyyi xibla gi di xaw naa am jeexital ci moom jeexital gi nag du dara lu dul xaw a mel na lu ñeewant waaye yonent bi ndigalul sunu borom du ca am déng-déng yàlla daal di koy wax ne ko walla in atayta giñ naa ni boo dikke woon àll si na gaañ nga xam ni joxeef na leen alkitaaba téere ba bi kulli aayatin ci bépp kaaw téef ci mbirum xibla gi nga wax leen ca bépp kiimaan nga wan leen ko ca mattabion mattabion du tax ñu topp mukk xibla taka sa xibla loo leen mën a wan loo mën a jëflanteeg ñoom mënoo fexe ba nu orienté wu bàyyi fa ñu nekk jublu sa xibla bi te man itam wóor na ma ne wa ma anta diir yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi taabiin ngay aji topp xiblatahum seen xibla gi du yàgg ba nga dellooti bàyyi li la yàlla sant di topp seen xibla ga doo ko def mukk moonte de wama baadum déet ñenn ci ñoom bi taabin mu ne aji toppatit xibla ta baadin ñenn ca ñoom <laughs> maanaam yow loo leen mën a wax du nu bàyyi fa ñu jublu ñëw fi nga di jublu ci jaamu gi mu ngeen dee jaamu yàlla yow itam doo bàyyi mukk fi la yàlla jubluwoo jubluloo dem di jublu ci seen xebla ga doo ca dellu waaye ñoom itam wama baadum bi taabin xiblata baadit mooy yahóot du yàgg ba mu jublu fi nasaraan di jublu nasaraanit du yàgg ba mu jublu fi yahóot di jublu wax ji jeex na yàlla ne ko wala ini tabaata giñ naa ne boo toppoon ahwaahum seen bànneex ya min baadi maa ak aka gannaaw ba nga xamee ni dikkee na la leen mi ci wax yuga innaka naka naka yow isan boo leen toppoon ci seen jëf joojee dem topp leen ci seen xibla ga lam mina zaalimiina da ngay tooñ bokk ca way tooñ ña xam naa ni sax doo ko def waaye yàlla bu koy wax yonent bi ñu ñee tax ñu tooñ ña mooy ñan àll si ne mooy gaañi nga xam ni aataynaahum jox nañu leen alkitaaba téere ba wala boog nga ni ne àlla si na gaañ nga xam ne ñu ne haa nga ne aatay naahum jox nañ leen alkitaaba téere ba yaari foona hoo xam nañu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nañu ko kama yaari foona kom nañu xame ab naahum seen doom ya maanaam jàng nañu ci tawraat xam ca saw melo yow yonent bi wóoroon ni yow da nga ñëw te nii nii ngay mel ni ñu la xame mooy ni ñu xame seen doom yi lan moo tax néewul xamuñu la ni ñu xame seen baay pourtant nit dana xam baayam mais baay ak doom ku ci gën a xam boppam neel baay ku ci gën a xam morom ja neel baay baay ak doom ku ci gën a xam morom ja baay moo gën a xam Ah? lan moo tax bàyyi gën a xam boppam mooy doom ci kanamu bàyyi la juddoo baayam nekk ak moom ba léppam mu fekke ko bokk doom nag bi muy judd fekk na bàyyi lu bareem jàll moo tax alxuraan néewul xam nañu yonente bi ni ñu xamee seen bàyyi kon dañ naan kon am na lu ñu xamul ci yonente bi waaye yàlla dañi ñoom xam nañu yonente bi ndax jàng nañ ko seeni tawraat comme ne bàyyi di xamee doom kon maanaam dara wumpu leen ci yonent bi mais dañoo bañ moo tax mu ni gaa yooyu nga xam ne jox nañ leen tawraat jàng nañu yeneen bi ca tawraat ba xam na yonent bi mel comme baay ni muy xame doomam mu ni wa inna fariqan nakab kuréel minhum bu tukkee ca yahuud ya la yakkatumuuna dañuy nëbbu alxaq dëgg ga te mooy melaw yeneen bi lànk bañ koo bind lànk bañ koo wax lu yàlla wax ci yonent bi ca foofa ñoom ñu wax ko ci safaan ñu nettali ko ci safaan bu yàlla ne yonent bi dafa gudd ñu ni dafa gàtt ci misaal rek laa leen di jox bu ne dafa digg dóomu ñu ne daa sittax bu ne yoon bu yàlla ne woon yonent bi dafa diika ñu ni dafa sittax ñoom seen waxi bopp la ndax bu lay misaal naan la nit dafa njool dafa xees kii ñëw ni la dafa gàtt dafa ñuul ki ngay xool nan la mel bu ñëwee yow kan ngay xool kan ngay xaar bu dee kii ñëw dafa xees njool am bët kii yow ñu ni la yow kooka ngay xaar ki ngay xaar noonu la mel waaye ki la jox information nee na la ki ngay xaar bu ñëwee mooy ku gàtt ki te ñuul te bët yi sew est-ce que da ko xam looloo tax nag ñu doon nëbbu melaw yonent bi di wax beneen safaan naa noonu la mel pour bañ yonent bi ñu xam ko mais ñoom bi ñu jàkkaarloo yonent bi xam nañ ni kii mooy melokaan wi ñu jàngoon ci tawraat hmm. moo tax mu ne am na kuréel boo xam ne dañuy nëbbu melokaanu yonent ba waxum te mbir moom ñoom yàlla moo na way ñu xam xel alxaqu dëgg ga mi rabbika ga tukkee sa borom yàlla ni yonent bi falaa takkoon na na bul nekk te leer na ma ni doon nekkit minal mumtarina bokk ci way sikki sàkka ñi wali kullin ñeel na képp ku mën a doon ci xeet yi wijhatun ak xibla huwa moom xibla ga mu moom sunu borom waa liyahaa mooy aji méngale mooy aji jubalale ja xibla ga ca booy julleeg booy jaam kon fas tabixoo na ngeen gaaw jëkkalante alxayraati jëm ci wow yiw yi te mooy topp yàlla te nangu li yàlla wax ay na maa tàkkoonoo fu ngeen mën a nekk ak fu mu yaati dana ñëw bikum ci yéen allahu yàlla jamiaan mboole seen fu ngeen mën a nekk bu dee jotee da ngeen dee waaye fu ngeen mën a nekk da ngeen dekki taxaw ci kanamu seen borom waaye fu ngeen mën a nekk ci kanamu seen borom itam yàlla dana leen fa fekk fay leen la ngeen jëf ina laa naka yàlla xadiirun aji dogal la aji àttan la ala kulli shay'in ci lépp lu mën a doon yàlla ni wa min haysu xarajta foofi génne jëm ci tukki yow yeneen bi wala feneen fa wàlli na nga jubale wàccaka sa jëmm ja sataral masjidi ca wàllu jàkka ja alxaraami ja di juñu xormaal te mooy kaaba ga wa innahu naka loolu jubale sa bopp ca kaaba ga booy jaamu lal xaq mooy dëgg ga nga xam ne min rabbika moo tukkee ci sa borom mooy ndigal la alxaq mooy ndigal la min rabbika gu tukkee sa borom wa ma yàlla bi xaafilin muy bàyyi di yàlla mos sàggan waaye da yàlla moomu du bàyyi mukk ama taamaloona wëlif lépp loo xam ni yéen a ngi koy def wa min su xarajta ma ngay baamuwaat wax ja waaye li tax mu koy baamuwaat da cay dolliwaat leneen foofi génne fa wàlli jubaleel wa ca sa jëmm ja sataral masjidi ca wàllu néeg ba alxaraami jaddi ju ñu xormaal du loolu la waxoon kon lu tax mu koy baamuwaat mais baamuwaat li ngay wax bala ñoo xam élo dangaa éloquent wala éloquent woo dañoo xool li nga mujj a wax lan la dolli ca la nga jëkk a wax mu indiwaat ko nag am xam nga ni ni ma éloquent ëpp na mu ne wa xay suma kuntum loolu ñëwul woon de fu ngeen mën a nekk yéen itam fa walloo fa walloowu jëmale leen orienté leen wujuhakum seen jëmmu ja sataral masjidi satarahoo ca wàllu néeg ba li àllaa yàkkoon a ngir na bañ a nekk li naa si ñeel yooyu ak ña doon weddi xujjatun lay aleykum ju leen war seen kaw illa la si na ndare nga xam zalamoo tooñ nan minhum tukkee ci ñoom lu dul ña nga xam ne ñoom ñoo tooñ mooy ñoo weddi nga xam ne d'accorduñu ci wëlbati gi yonent bi wëlbati xibla gi ci ndégalu sunu borom ñooñu nag bu leen sóoraale moo tax yàlla ne falaa taxshawhum bu leen ragal ci dàggante gi ñuy dàgganteeg yow naan la lu tax nga wëlbati xibla gi jëm barab sàngam xanaa yow kay lii xanaa yow laa yàlla nee na ko loola bu leen ca ragal xam nga lan la wax saw nii nanga ma ragal ci jëfandikoo sama ndigal wali ma ak ngir na ma mottali nii mati sama xéewal ga aleykum ci yéen wala lakum su ko defee ci dëgg-dëgg yéen su ngeen jëfee li ma wax te doona da ngeen jub su ko defee ma mottali ko wali utimma nii mati aleykum kama naa comme na nga xam ne noonu laa mottalee woon noonu laa yónnee woon fiikum ci yéen rasulan ab yonent minkum gu tukkeen ci yéen te mooy yonent boo xam ne loo ma ngay jàng ayatina sunu aaya di alquran aleykum ci yéen wa yuzakkikum te itam dana leen laabal jële leen ci bokkaale wa yuallimukum te dana leen jàngal ba ngeen man alkitaaba alquran wal xikmata ak xereñ ga atte ga te mooy atte yi nekk ci biir alquran wa yuallimukum dana leen xamal maa loo ne lam takkoonoo nekkul leen woon te alamoona doon ko xam kon yàlla ni faskuroo nii dee leen ma tudd ca sàbba ak bu ngeen dee julli su ko defee askurukum danaa leen tudd ci pay dangeen ngeen wax waskuroo sant leen lii ñeel ma sant leen xéewal yi ma leen defal nan ngeen di sante xéewalu yàlla nan la ko nit di sante mooy jëfandikoo li la yàlla digal loolu mooy sant wala takk furuni te bu leen ma weddi weddi ga mooy lan mooy mooy ndigalal sunu boroom boo dee yaa ngi topp yàlla rek yaa ngi sant yàlla sant nag dafa baax sant dafa am ben sëriñ am ñaari taalibeem ñew sëriñ bi ni talib ben bi ben talib bi na nga def mu ne ko ah maa ngi fi di muñu rek di góorgóorlu di muñu rek mu ne ko ah baxna mu keneen ki na nga def mu ne ko maa ngi di góorgóorlu di sant rek maa ngi fi sante rek mu ne yaa ngi sant mu ne ko ngi rek sëriñ bi daal di enveloppe bu reuy lol bu fees jël jox ki mu mujj ki mu ko ne ki ko ne maa ngi sant rek ne quoi ah, yàlla kan moon la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee ma dolli leen comme yaa ngi fii sant rek kon jàppal ci lii ah ki ni woon moom day muñ mu ne sëriñ sëriñ de moom jamono ji maa ngi nii rek maa ngi fii sant di maa ngi fi muñ waaye di sant rek maa ngi muñ waaye di sant rek maanaam muñ gi la boole sant gi léegi ndax enveloppe enveloppe mën na lu ne enveloppe buñ la waxee kan moo dàq fen loo nit ngeen baal ma neel mooy enveloppe nit mën nay wax dara di xët xëti di tëb di dal ñu naan ko déet diw mu naan maa ko wax waaye buñ ko gisee ci roq ak enveloppe bu diis bu génnee rek nga gis mu changé parole te li ci gën a yéeme booy changé dangay ngay naxante te li gën a metti mooy ñaar yu dendul bokkuñu nga bëgg a jóge ci benn bi dem ci bi ci des ci saas dafay metti surtout nag ñeenti jàkkaarloo yoo xam ne ñaari fi ngay jóge fi nga jëm bokkul <laughs> yàlla ni sant leen ma sant yàlla nag mooy ca topp ga mi ngi mel na jéggulu sunu borom jéggulu sunu borom du astaxfirulaa da nga daan sàcc ba yàgg ngay jéggulu sunu borom déedéet du astaxfirulaa de da ngay bàyyi sàcc door a wax astaghfirullah da nga daan dox loo wër ta dox da ngay téye sa tànk toog ba pare door a wax astaghfirullah da daan lekk riba da koy bàyyi ba pare door a wax astaghfirullah door a dóor say astaghfirullah waaye riba ba doyal kon moo la tax di tuub nga naan astaghfirullah te bu subaa ca ngay xëyaat yàlla nee na jaru ko woon sab tànk du toog doo toog doo taxaw fu ne nga dem fa lu ne nga def ko ba pare ñëw naan astaghfirullah te bu subaa ca ngay dellu yàlla nee na jaru ko woon moo tax am ko ni istixfaaru naa yaxtaaju istixfaaran aaxar sunu astaghfirullah bi léegi dafa soxla beneen astaghfirullah moom ci boppam waaye sant yàlla itam ah du toog rek naan jërëjëfa yàlla de da caa bokk sant du wax rek jëf la waaw noonu la booy sant yàlla kay ci nii ngeen def rekk la mbooya mu tàng mi ngeen màng mbooya mi ñëw ci jàkka ji toog di déglu waxi sunu boroom ji ji nga xam ni ki koy wax na mu koy toll la koy waxe waaye jegewu la toll na sunu boroom waxe ngeen di ko déglu ngir aji wax ji di yàlla waaye du aji nettali ji mais aji wax ji leen ko jaral loola mooy sant yàlla waskuru lii mooy na ngeen ma sant ca topp ma wala takk furóoni te bu leen ma weddi te mooy mooy ma yàlla jox na orientation bu boo xam ni war nan di ko bàyyi xel yàlla ni yaa ayyuhal lazina amanu ee yéen gaa ñi nga xam ni yéen a ma gëm astaayinoon na ngeen di dimbandikoo fii ca àllaaxira ak sax fii ci àddina bi sabri ci muñ muñ dee leen ko dimbandikoo muñ topp yàlla ak muñ bu balaa dee wàcc sa kaw ak muñ loo amul muñ muñ topp yàlla dafa diis nga muñ di ko def mooy yàlla dafa neex nga muñ di ko ba balaa ak musiba dafa metti nga muñ di jànkonteeg moom aha kon nag mi ngi noonu astayinoo na ngeen dimbandikoo bi sabri ci muñ wa ak ci julli yàlla bari na lu mu koy baamu ndax lan ñaar yooyu dafa am doole moo tax inna laa naka yàlla maa saabiriina ndimbalam ànd naag way muñ ña ndimbalu sunu borom ànd na ak way muñ ña li la koy xamal mooy tey rek ci misaal wàllu àddina rek tey ki ma àndal léegi ñu jóge booru hôpital ni ngi romb benn étage mu ne ma waaw étage bii de moom tabaarakallah macha allah mu ne ko ah, ki ko tabax day ay mbuus la daan yor dugg ci oto yi topp marché yi waaye muñ rekk muy metti muy muñ rekk ba loolu fekk ko fi mu ne ko wàllu àllaaxiraat noonu la lépp looy wuti te àndul ak ñett loola doo ko indi looy wuti te àndoog muñ àndoo akum xel àndoo aku fit loola doo ko indi ñett yi mooy ñett yoo xam ne boo leen boolee am nga doole joo xam ne keneen ku ñëw yow lay dimbali waaye ku la mën a dimbali te àndook ñett yi doo dem boo amee xel te amoo fit doo dem boo amee fit te amoo xel doo dem soo amee fit ak xel muñ doo muñ nag mooy benn matière bu la nee lan mooy li nga xam ne ci fépp la bokk muñ neel moy muñ muñ fepp la bok boy jang da ngay muñ wala do at boy tak jabar bo takke jabar da ngay muñ wala du ngeen and bo sëyee da ngay muñ wala do fa tok ah loy wuti lu nek lu mu don lu nek da ngay muñ mom moy matière bi nga xamni bu don sar bu don sar la mom lañuy wax ah universel la waaw kay mooy muñ fépp la bokk demal jàngi rek te muñoo diplôme ya bu soobee yàlla du la fa fekk Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu wax na ko ci benn xasidaam xasida bu am solo boo demee ci kun kaatiman li durri wal bu saa xastan wa taalal jiila yaa mutaallim dem na ba ci biir mu ne abdan sabooran yulhimu xom dama koy fàtte waaye boo ko toppee ba mu jeex da nga ci gis ne lim de jëkk a wax doomu muñ koy def kun kaatiban li durri nee na booy wuti xam-xam da ngay nëbbu lor ya lay dal lor ya lay arrivé ci yoon wi da koy nëbb lan mooy tax nga mën koo mu nëbbu lu dul lan muñ wal bu usaa nee na wansu gi ngay wansu tiis tiis ak triste gi nga xam ne moom ngay triste yow mi wuti xam-xam lan mooy tax nga mën koo maîtriser man koo denc mooy muñ nee na soo ko defee rek tànnal danga am xas dan li la taxoon a jóg wa taalu te da nga kawe al ji la sag maas yépp yaa mutaallimu yow mi nga xam ne yaay sàkku ji xam-xam xam-xam yàlla du ko jox ku dul muñ xaalis yàlla du ko jox ku dul muñ àddina ci gàttal yàlla du ko jox kudul muñ àllaaxira yàlla du ko jox kudul muñ muñ mooy bokk fépp muñ ak ñàkk pexe nag duñ benn muñ ak ñàkk pexe yeneen ti wax na benn xadis boo ko xoolee xoolal muñ nam fa amee solo xadis bu ma bëgg waaw waaye nag nee na muñ moom ci ki mu gën nag mooy ku ñàkk يعني بن انا العبد الحسن ولكن في الامراء احسن السقاء وحسن ولكن في الاغنياء احسن الصبر حسن ولكن في الفقراء احسن الورع حسن ولكن في العلماء احسن التوبه حسنه ولكن في الشباب احسن alxayaau xasanun walakin fi nisaayi ahsan yenent bi nee na juróom-benn ngi nii di am juróom mbubb mbubba ngi nii ku ko sol mu rafet ci yow waaye bu ko juróom-benn solee ci ñoom la gën a rafet nee na mbubbu maandu ku ko sol mu rafet ci yow waaye bu ko buuri solee ci ñoom gën a rafet mbubbum tabe ku ko sol mu rafet ci yow waaye ñaa am alal bu ñu ko solee ci ñoom lay gën a rafet nee na mbubbum muñ ku ko sol mu rafet ci yow waaye ñi amul dara buñ ko solee ci ñoom la gën a rafet ah mbubbum sàmm ku ko sol mu rafet ci yow waaye bu ko boroom xam-xam yi solee lay gën a rafet mbubbum tuub ku ko sol mu rafet ci yow waaye ndaw yi solee lay gën a rafet mbubbum kersa ku ko sol mu rafet ci yow waaye bu ko jigéen ñi solee ci ñoom lay gën a rafet muñ foo dem fekk ko fa bàjjul inna laa maa na lool rek jar na muñ wala taqooloo bu leen wax li man ñeel gaa ñi nga xam ne yuqtal li man ñeel ka nga xam ne yuqtalu rey nañ ko dee wala boog daañu ko rey fi sabilaay ci yoon yàlla bu leen leen jortoo am waatu ñuy way dee ci neen noonu rek bal déedéet débewul noonu ñoom ahyaa un way dund lañ ci seen boroom borom walakin li fi nekk yéen laa tash'uruuna yëgul leen ni ña dee ca xaraya ak yeneen yu mel na moom ña ngay dund ci seen borom am na ñu ni yàlla seen ruuya ma ngi koy def ci biir rokke ay njanaaw yoo xam ne dañoo nëtëx seen melokaane dañoo wert ñuy naaw ak ñoom ci biir aljana walakin laa tash'uruuna yéen yëgu leen ca dara yàlla indi wax joo xam ni wax ju am solo la yépp am solo waaye dégg lu leen wax ci yàlla ne wala nabluwannakum giñ naa ne daañu leen nattoo bi shay'in ci tuuti ci lëf bi shay'in tanwin googu yéen a ngi jàng ci grammaire tanwin ñeent tanwinu taas taqlil tanwinu taksiir ak tanwinu ah taqlil tanwinu taxir waaye tanwin gi xam ngeen ni tanwinu ah taqlil bi shayin yàlla nee na daañ leen nattoo bi shayin ci lu tuuti minal xaw fi ci xeetu ragal ñeel noon ya lu ngeen di ragal daan leen ca nattoo lu tuuti wal jooy ak xiif wa nax seen ak wàññeeku minal amwaali ca alal yi walla an fusi daan leen nattu ci bakkan yi mooy ñiy dee ak feebar yeeg yooyu wa samaraate ak meññent yi ngeen bay dara du ñor waaye wa bashari na nga bégal na nga xamal asaabiri na way muñ ña muñ ñëwaat na ca balaa ba na ngeen leen ca bégal ni ñoom ñii ñépp bu ñu muñee àjjana la leen loola di jural allazina mooy gaaña nga xari isa batum bu leen jotee musibatun musiba lenn ci lii xew xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lu dee kese de lu leen mën a dal musibatun balaa natt bu leen dalee xaaloo dañuy wax inaa naka ñun lillaahi ay jaam lañu ñeel sunu borom wa inaa naka ñun yàlla ñun ñi itam rajiuna way dellu lañu ilahi ci teew sunu kanam borom bu ñu tiitee dellu ci seen borom bu ñu xiifee dellu ci seen borom am na ñoo xam ne bu ñu xiifee du ñu dellu seen borom de dañuy jaay seen ngor waaye ñu ni amuñu ko woon ba di ko jaay axakay amoon nañ ko dañ koo jaay nit lu mu amul du ko jaay dañ koo jaayee lu ko jaru boo xoolee itam ñu ni ngor ku koy jaay amoo ko woon ñooña dañuy wax dëgg ci côté ba tey mën nga leen a nangul neen leen ah kay ngor ni mu foore ni mu baaxe ku ko am moo lay gënal lépp loo mën a wuti kon boo demee di wuti leneen bàyyi fa ngor da koo am am na ñoo xam ne bu ñu xiifee non non xiif jaral na leen lu nekk jaral na leen sàcc jaral na leen topp ci ku ñu wërata topp jaral na leen wax lu dul dëgg jaral na leen dem fu ñu wërata dem xiif jaral na leen ko te ba ñu xiifee dañoo waroon a fas rek ni inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ñu xam ni ci yàlla lañ jóge ci yàlla la ñuy dellu te yàlla am na lu faj xiif jeex na wa naqsin min al amwaali boo amee alal mu tàkk bitig ya tàkk na wala kër ga lakk na wala oto ba def na accident moo ko rub leneen ñoom bul saalit bul def loo wër ta def xamal ni rek ci yàlla nga jóge woon ak loola te itam yàlla jooja ma nga fa te mën na koo dellu siwaat ci yow nga muñ wala an fasi boo feebaree bul saalit am na ko koo xam ni day dox di tëgali përëgam di tëb di dal di yëkkati ko di wax lu ko neex bañ képp su ko dalee day mel ne du woon moom day nooy nepp nit teg di lewatal ay bët lo wax mu top ci lu docteur bi wax mu top ci lu keneen wax mu top ci dafa am sama ben xarit bo xam sama baay la daa di feebar nag ndeysaan feebar na fukkat te da bi jaa wex tal te du lu mat fukkat ma ñew ne ko ah waaw bàyyi diw yow da nga da nga da nga wër mu doon gor gu neex nak mun ma toogal danaa wér mu ne ko ah, mun ma togal tok mu dang ko koo dañ la ko waxam gis wër gi wér gi foo teg wax gi ma ne ko ah damaa xam ni moom da nga wér bu soobee yàlla danga nga mu ne waaw waaw waaw danaa wér waaye bu soobee yàlla ñi nga ci wax day moo ma jaaxal ma ne ko ah bu soobul yàlla nooy wére mu waaw bu ko soobul kon damay dee rek te loola ma jaaxal daal di saalit carrément te ku neex la woon ba mu mu yàlla dogal na mu jékki-jékki wér wér na dundaat fi lu jege fukki at ak juróom continuer di defi ñaanam boo ko xoolee ne ko waaye bàyyi diw suñu sa feebar ba mu ne bul tudd daal di xàqataay ma ne ko yow de lii nga woon mu ne araam waxuma ko woon waaye am na ñoo xam ne mun feebaree saalit te boo feebaree da ngaa war a xam ni yow ci yàlla nga jóge feebar bi ci yàlla la jóge te bu ko fa yàlla jëlee mu jóg fa ah sama mbokkum pël ma nag def na ko feebar rek tëdd ñëw ne ko ah, yoro feebar bi metti na de mu ne ah waaw mu ni yàlla da xam nga moom rekk mooy buur ñu ni waaw mu ni yàlla moomu di buur moom su ko neexee rekk mu dundal ñu ni waawaaw ay yoro da gëm na ndeysaan mu ni bu ko neexee itam ah mu continuer di dundal rek fekk daa bëgg ni bu ko neexee mu ray waaye bugul tuddu ray ak dee lay bañ a dégg mu ko yoro dafa nga ngaa nekkub séeréer séeréer yi ñoo gëna ragal dee ci àddina ak ragal séeréer <laughs> yene nak nit ñi niñ mën a jabulisee tém ñu ni séeréer yi laalate nañ leen ay man pël la lu ma neex la leen di wax ay kal lañ bala ngeena tukkal addina bi ndax nit ñi lool rek lañuy def mag ñi dañ daan jël waaso yi di ci kaf

nee na sunu nee na góor gi li mu bëgg a wax nee na sunu mbokku pël bi daa feebar doom ji daa feebar nee na mu ne ah yàlla sama doom jii de bu wéree danaa ko joxe mu dem jàngi alxuraan nee jabar ji ni bari ne ko kon nag yi kam ku ci topp kan mooy saami nag mu ne ko bul wax bàyyi noonu man may nag yàlla rek <laughs> ndeysaan mag ñi kal yooyu dañ ko daan defante ci diggante bi pour bëgg Walu etni du am walu xet du am léegi nak nit ñi toujours dañu yakamti ben affaire bu am rek ñu jël ko parafito ci duggal walu xet ta mag ñi loolu la daan bañ motax da nga daan gis masna tok ba yag ben way karma fi ci mbeddu koude bi wax ma lo xam wax ma wax ju bon man dal ma xol ki ban façon ban façon door la ko wara door ki dama ko wara maa jéeri wala jakk sukki walla kii kii daal man lan laa ko war a def mun ma yee man faalewu ma la pël nga rek loolu dara pël bu ca baax amu ci ma daal di wokk ndànk sama loos dem xoola ñi li ñu liggéey foofu loolu mag ñi dañ koo liggéeyoon ba mu baax ñu ba ko fi kalante bi kalante bi am na solo trop waaye boo feebaree saalit boo faatu boo faatuloo saalit alxuraan nee na du noonu boo amee ku faatu nee na demal ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna jàppal ni ci yàlla ngeen jóge woon ci yàlla ngeen di dellu moom moomu faatu mu naqare la ba ko yàlla di indi tàgguwu la kon kay bu ko fi jële du la tàggu dafa am sunu benn jour ñu préparé jëm moo tax nga xam ne yàlla may na lu nekk ngeen baal ma rek xam naa heure baa ngi jot ñu préparé jëm Mauritanie benn gàmm bi ñu yablee ci gàmm bi sëñ Mansour yable gaa yi daal di ñëw war a jaar ci sëñ Maodo ñu ànd ak moom war a jëm Mauritanie war a ànd ak convoi bi jëm Mauritanie bi ñu ñëwee am benn waay boo xam ni benn magu waykat la woon daal di wàcc oto bi ni mën na fii ma duggoon dootuma fi dugg xalaatuma ko ci àddina fii li ma daj metti na ci man trop daa ni moom bu naree dugg foofu day toog bañ dem ni ba ñëw mu àndaata ak waa Dakar ñibbi waaye du ci toog am ku bokkoon ci ñun daal di ñëw daan ni moom ca lay dugg daal cay dugg bi mu ca duggee ma ñew ci sëñ Maodo ne ko man dal dama la soxla won mu ne waaw ma fekk ma ngi ko gis mu tek mu taxaw ci cholestérol yi tek ay loxam kanam gi changer lol mu taxaw rek nit ñaa ndek ci biir way mi ngi taxaw rek djublu penku ma ñew ne ko man day dama bëggoon ñu dem Mauritanie ma ngi Moustapha ja fekk ma ngi Moustapha ñi ngi taxaw ci suuf Moustapha naan ma demal taggo ma naan ko demal taggo ma ne ko man pa bi nit la rek dañ koy taggo moom ñemewul waaw ah, moom dafa mas <laughs> dafa ragal paa man nag ma ñëw wax ko ko mu jànni ma ci suuf nga naan dem damay dem Mauritanie mu ne waaye kii lu tax mooy jànni ma déconné man tam daal di fas sama kanam xaw a yëngal tuuti moom itam mu continuer dirse rek daan ni ndekke am na kum ni yoon wi ñaar daan ci des li ma yàlla woon mooy yoon wi ñaar danañ ci faatu mais xaw ma ñan waaye munta ñàkk ndeke looloo tax ñun mu tere bi ñu demee yàlla dogal ñu dem rek ci yoor yoor bi rek ñu daat ni suba teel rek ñu jox nu xibaar ñaar faatu kenn ki di sama xaritu benn bakkan ki ci des jóge dakaar waaw ndeysaan mooy tur wow nga wax mu tiis lool mu yàgg moom paa bi nit ñi di jot information naan bokk na ca dañu ko nëbb ak bokku ci ba digg bëccëg information bi léew ñu toog war a yekk añ benn nit daani waaye nan yekk añ bi waay ma ne ko ah, sëñ bi nag yow daal dëgg dëgg nag yaa ngi ñuy tànqal nag mu añ bi ndax buñ ko yekkee daan ko lekk mu ne lu tax kenn du ko lekk ma ne ko lii am mu ne ma lee am lu ci sa yoon accident bi sa yoon da cee nekk ma ne ko sunu nit mun ma ndax yaa leen sàkk ma ne ko waaw paa bi ci naan bokk nañ ca mu ne bu ci bokkee lu ci sa yoon ne ah, mu ne ma ñun bu ñu xëyoon dee ba des man dong du yëngal ci man lu tol nii ndax damay xam ne nu moom moom ñi mu jël sañ ko def ko bàyyi ma fi man bu ma yóbboo du dara ci man ñekki añ bi damay añ ba rekk te moom jarbaatu paa bi la muy daam si la mu def man affaire bi jaaxal ma affaire boobu na am sax lu mu def ci man ba man ma xaw a résister wu xaw a dëgër tuuti ma ni kii daal day wax rek ma topp ko nag mu dem Europe jabaram gaañu gannaaw ñu woo ko moom moo jekki di woo nit ñi di leen jaal naan waaw waaw si gi leen mbokk mi waay ah moom dawaay man soxna si de waaye nag daa matal de gis nga dégg man mii dégg ngaa man mii su ma mataloon noonu laay demee ñu teg ma ci kees indi wala ñu rob ma fu neex yàlla ci laa ne nag kii la ma doon dégg ci moom at yële mu wàcc ci moom tey kon kii dëgg la ci moom am na nit ñoo xam ne noonu la seen ngëm mel noonu la seen dëgër mel yàlla daa bëgg nit kuy muñe noonu ñooñu nag yàlla ne wa basiri bégal a saabiri na way muñ ñi mel noonu àll si ne mooy gaañe nga xam ne saa jot na leen musibatun balaa nattu xaaloo dañuy wax ne inaa naka ñun raa illillaahi ñeel nañu yàlla ay jaam lañ ñeel sunu borom wa inaa naka ñun raajoona way dellu lañ ilay ci kanamu sunu borom yàlla ne ulaayka yooyu le gaay alayhim yéen na wàcc seen kaw salawaatum njéggal min rabbihim bu seen borom wa rahmatun ak xéewal ulaayka yooyu la gaay hum ñoom ca dëgg dëgg dëgg ñoom kepp rekk dong al muhtadoona ñooy way jub wax ja jeex na ma ngay dem na safa naka safa wal marwata ak marwa ñaari doj lañ yu nekk màkka maa ngi liir ci benn téere mu naan ñaari nit lañu woon góor ak jigéen gu def naka sanulu noona ca wetu kaaba ga yàlla masaku leen soppu leen ay doj loolu dal lire na ko ci yenn téré bu ngeen al fawaki ad dawani yaakar na ne man na am ma nga ci waye lu ci mën a xew ñom ñaar safa ak marwa di ñaari doj yo xamni des koy dox jangon ngeen ko ci hajara na mu doon kaw di seenu ba xam dana seen fenn am ndox di koy yéeg ci marwa keroog ba nga xamé ni jaaxle na ci maru dom jadi ismaila safa ak marwa bok ci lo xamni dañ koy dafa bok ci ponk yi nga xam ni ci ponk aj la bokk xëy na dana gën a leer ca kanam waaye safa ak marwa daal min sha'irillaahi bokk na ci màndargay yi màndargaal diine sunu borom ji nga xam ni bokk nañu ci ponk aj yàlla ni faman xaj ku aj albayta néeg ba awe tamara wala mu umra umra jot na gaa yaa ngi koy def umra mu baax na waxtu wu nekk waaye gaa yi bëgg nañ ko koor yalla ni fala juna déet ben bakar ali di ko ca war ci lan an yatawafa mu wut bihima ca saba ca safa ak marwa waman tatawa ku coobarewu nak khairan ci yiw manam defe naa ni loolu nag bu ngeen deme ca ajga benen beneen façon la ca na ngeen ko xamewon ca ajja ya, façon aj ya dem jëf jëf yiw joo xam ni waru la ca wër kaaba ga def nga safa ak marwa ba mu neex la nga dem doxaat safa ak marwa toogaat dem doxaat safa ak marwa fu mu la neexee rek nga dem dox ko mooy tatawaa fa inna loolu yiw la xéewal la te fa inna laa naka yàlla shaakirun aji sant la ki jëf-jëf jooju alimun ku xam la itam ku ko jëf wàcc ci yahudi aaya jii may wax yàlla continué di ko wax di ko nett naa inna la si na naka gaañ nga xam ne yàgtu moo na ñu ngay nëbbu maa la nga xam ne naa wàccee nañ ko nun yàlla minal bay bayinaati ci leeral waddu huddaa ak ci njub ga comme nëbb nañu aayatu raj mi nëbb nañu melaw yenente ba yàlla nee na ku ko nëbb nag min baadi ma bayan naaw gannaaw bañ ko leerale li naas ñil ni fit kitaab yi ca tawraat fa ulaayka yooyu la gaay yal anahum dana leen soleer yël ma néem nga allaahu yàlla wa yal anahum te dana leen rëbb alaa inoona way rëbbuña te mooy malaayka yi illa lasina loolu gaañ a nga xam ne taaboo dañoo tuub ganaaw ga wa aslawu ñu jëf-jëf ji yiw wa bay bayanoo ñu mujj leeral la leen yàlla leeral loo fa yooyu la gaay a toobu yàlla dana nangu tuub alayhim ci ñoom yàlla ni man maa ko manta maa koy def wa am naa man yàlla a tawaabu maaye nangoo koon tuub ba a rahimu maa yërëmaa koon tey tawraat la waaye ñëw na ci alquran ji képp koo xam ne li alquran yaa ngi koy nëbb yàlla leeral yaa ngi koy nëbb ndax leeral gi arrangé wula tax doo ko leeral ba tey ulaayka yalanuhumullah wa yalanuhumul noonu day wàcc sa kaw téere bii am na ñoo xam ne bu ñuy leeral ba jub fenn fi dañuy tëb ndax la téere ba di bañ ñoom noona lañ mel la téere ba di digle itam ñoom defuñu ko kon kay ñooyee sote képp koo xam ne nag yaa ngi def loola ndax leeral gi arrangé wu la dugg nga ci ulaayka yalaanuhumullahu wa yalaanuhumullaainoon ndare bu ñi nga xam ne biñ ko defee ba pare xam na ne loola defuwul ñu tuub dellu di jëf-jëf ji yiw dellu di leeral la yàlla leeral ca téere ba réccu lëndëm gañ te doon lëndëmal ndax seen intérêt bopp su boobaa na yàlla dana leen jéggal yàlla dana leen yërëm innal lazina naka gaa ñi nga xam ne nag kafaroo dañoo weddi wa maatoo ñu dee waxum ta mbir mum ñoom ba ñuy dee ku faaru ñu dee ca kéefër ga ulaayika yooyu la gaay alayhim dana wàcc ci ñoom laanatullaahi soreg yéen ma nekk sunu boroom wal malaayikati ak rëbbum malaaka yi wan naasi ak jullit ñi ak rëbbum jullit ñi aj may na mboole seen dana diis la nee nañu dee ci ak kéefër tuubuñu dellu ci seen boroom ñooñu soreg yéen ma nekk sunu borom dana wàcc ci ñoom rëbbum malaaka yi dana wàcc ci ñoom rëbbum nit ñu baax ñi dana wàcc ci ñoom te loola mooy dem safara ñi dee ci kéefër te bu ñu demee safara xaalidiina mbirum nekkam ñuy way sax dak fiyaa ca biir safara falaa yuxaffafu déeful wayefal benn temps benn jamono benn jamono deeful teggi allah saabu mbugal ma anum teggi leen walif leen benn seconde bu yàlla di teggi mbugal ma ci ñoom amul samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi tout bis yëpp lakk ga du teggeeku waxtu ya du teggeeku minute ya deesu ko ci tegg ah ya kenn du ko tegg cers sax kenn du ko ci tegg moom koy day continuer rek te li ci gën a metti bu doon dangay ngay dee sax nga ni tan bu doon day dem ba nga miin ko dootu ko yëg nga ni tan waaye ni nga yëge ni ñu yëge mbugal mi ñoom tey nañ ko yëge suba mooy gën a metti xam nga alxuraan bu laa kullamaa nadijat kullamaa nadijat juluuduhum balalnaahum juluudan xayrahaa liyasuuqal azaab yàlla nee na waxtu wo xamni seen der yi dem na ba lak ba xam xeruus ñom ñi nek safara yalla man nako metel ta duko du waye xamna waaye ni méttee ci ñu badal na am juloo dan xayraa yalla ne dañ leen di xulaas xulaas ni jang ñeb ñi ñi eh, lek katu ñeb bi xam nañ ko yalla ne damay mati der ba ca kaw ba mu besa tak ñu continuer nek ca ca safara bu ñu dañoo mar dëtti wànjar ja nga xam ne mooy ak deret ja nga xam ne mooy rogalaat di di di rogalaate ca ñi nekk safara day am yool mu jaar bu ñu maree yàlla neen dem leen naan ca tijjee mooy seenum ndox falaa yuxaffafu anhumul azaab deeful wayefal mbugal maanum teggi leen wala am déet ñoom itam ñun saroor a dee fi leen di muñal di muñ ci ñoom muñandiku maanaam di xaar ñu tuub yéefari na karoon nañu yeneen mi ne ko melal nu sa boroom sunu boroom melal nu moom mooy kan sunu boroom kan sunu boroom bii ngay wax mooy kan mu ni leen wa ilaahukum seen buur bii ngeen di laaj yéen yàlla mi ngeen di laaj ilaahun buur la waahidun bu di benn kon ñoom ñu naan Iisaa yàlla la Mariama Useyro Useyro ibnu Useyro nangam nangam di wuti seen yàlla loola moom dàqoon ilaahun waahidun am na ñu ne ismullaahil asam fii la génne ilaahun waahidun laa ilaha amul benn buur illaa huwa moom yàlla képp rekk dong arrahmaanu yàlla moomu mooy yërëm mooy xéewal bépp mbindéef bu nekk ci àddina arrahimu mooy yërëm képp ku ko neex ci àllaaxira ñoom ñu ni yàgg di xool yonent bi mu ni leen su ngeen gëmul lii ma wax ci waxit ñu ni ko ñoom danoo bëgg nga indil nu màndarga mu wan ni yàllaa ngi fi kenn la mu ne leen inna fii xalqa samaawaati naka nekk na ci bindug asamaan sii leen tiim wal ardi ak suuf sii ngeen di taxaw di wax ak man waxti laa fi layli ak wuute guddi gi wa ak bëccëg ga wal fulki ak gaal yi allati gaal yi nga xam tajiri mi ngay daw fil bahri di xotti ci biir géej gi bi maa ngir loo xam ne yan faw day jariñ anaasa nit ñi wamaa ak la nga an sala wàccee na ko allaahu yàlla mina samaay ci asamaan fa min maayin ci xeetu taw fa yaa mu dundal bii ca taw booba alarda arda baada sa baada mawtiha gannaaw ba mu wowee koŋ wa basa mu génnee mu yulli fiyaa ca suuf sa min kulli daabatin ci bépp daaba luy dox wa tasriifi riyaahi ak ëppub ngelaw la wasaa bi ak dem niir ya al mu sàqari ba de bu ñu tàggat bay na samaa ci diggante asamaan wala ad ak suuf juróom ñaar yi ma wax la lu ko jege lii bu ngeen ko xoolee doy na la aayaatin ay kaaw téef ay kéemaan li xaw mi ñeel ñoo xam ne yàqiloona dañoo ànd seen xel mun leen lii bu ngeen ko xoolee kay amu ci lenn lu ngeen man amu ci lenn lu ngeen tase ku ko man amu ci lenn lu ngeen gis ku ko man waaye amu ci lenn lu ngeen tase ku ko man waye gisul len ku gis ku ko man len itam ku tassé ku ko man ta lolu amna kon war ngeen xamni am ko amna na ko ko def ka ko def nak moy sunu borom ki taxo nan la yalla moy kan yalla amul nangam nangam moy professeur philo yi ak sunu professeur sen khalifa ja ñi nga xamni ay ay philosophe lan yalla amna. lula xamal ni amna waaw fi nga taxaw di laajte yalla son bi génné ci sa gimiñ gi te dencuwul ci sa biir ah, bët yi nga may xoole loolu ku ko def léegi bal boo ma dàqalee ne yàlla amul danga may indil ki def loolu ko soo ma mënta indil ki def loolu mënoo maa dàqal ne yàlla amul mënoo maa dàqal ne yàlla am na benn kay danga may indil ni ma kii moo bind asamaan nga bind indil ma ni kii moo bind suuf nga indil ma ni kii yow moo la bind indil ma ni ma kii man mii wax a yow moo ma bind soo ma ko indilee ma mën a d'accord ci ni yàlla amul waaye man yow indil naa la ki la bind indil naa la ki bind asamaan suuf bi nga ma laajee nee naa yàlla la yow mi ma du yàlla na yow yaa am pour indi preuve am déet mi ngi noonu wa mina naasi am na ci nit ñi yahoot yi man koo xam ni ya yataqisu day jàpp day jël an daaraan ay xërëm min doonillaahi wàcc fa yàlla mu ñu waroon a jaamu ñuy jaamu xërëm te itam yuhibbuunahum ñoom ña ngay màggal xërëm ya bëgg nañu xërëm ya ci màggal ka xubbillaahi koom na nga xam ni noona lañu waroon a bëggee yàlla wala si na gaañ nga xam amanoo gëm nañ ñoom asadu ñoo gën a taraxu ban cofee li laay ñeel yàlla da yàlla ni wala yara bu gisoon àll si na gaañ nga xam ne salamoo ñooy bokkaaleeg yàlla di jaamu këram is yaraw na jamono ba nga xam ne gis nañ ala saaba mbugal ma keroog daañu xam ne am na ak naka kàttan ga yeyoo jaamu li laay ñeel na yàlla jameen boole si bu ñu gisee mbugal ma leen yàlla préparé bu ñu ca tegoon seen bët daañu xam ne yàlla rek mooy borom kàttan mooy yeyoo ñu jaam ko waa na laa naka yàlla sadidul azabi ku tar jig mbugal la te loolu is mooy jamono ba xani te baraa day dañtal àllasina gaañ a nga xani ittub ittabu ittubio toppee foon na leen mina la ca gaañ a nga xam ne itaboo toppoon nañ leen mooy bis ba nga xam ne ki ñu toppoon day dañtalu ca kaka toppoon kañ la waa ca dëgg-dëgg li tax ku ne di daw sa moroom ki nga xam ne moom lañu toppoon mooy jëkk a daw mooy ra oh, dañoo gis dañoo jàkkaarloog alaasaaba mbugal ma wata xataa jeex na tàkk bihim ci ñoom alaas baabu naxante yee leen boolewul jeex na su ko defee xuloo ba tàmbali waxaala daal di wax la si na gaañ a taboo toppoon na leen ña toppe woon ñoo ni law an na lanaa karratan law an na lanaa ay bu doon danoo ñeel karatan ak ak ak dellu ca àddina ñetti minute buñ ko dellu woon ci àddina kon fa na tabarra daañu dañtal minhum ci ñii ñu doon topp kama tabarraw comme nañu dañe tey jii min naa ci ñun ñii nii ñu suttikoo ci ñun mel na ñun mësuñu leen a xam ay bu ñu delloo waatun fee ci àddina kon de ñun daañu leen bàyyi bàyyi bu gën a ñaaw gi ñu ni bàyyi tey waaye bay wéy na mbuus loola nag balaa ci àgg nga xam ki ngay topp fii nu mel topp ci ku lay nax boo léegi lii rek a cay xew xam nga ki lay nax kanaa ki dox sa digganteeg yàlla ki nga xam ne wanu la yàlla walu la yonent bi jàngalu la boolewulaa ku lay jàngal jaamuloowu wula yàlla julliloowu la woorloowu la moom daal boppam rek te koo ci gis mu téye la ba mu dëgër ma nga yóotu sa doom ana xale yi de leen indi ñuy ñëw waay bu leen di bàyyi xale yi ca gannaaw na xale yi ñëw bu ko defee ñu boot bopp bopp xale yi mbogo mbogo ji bopp yóbbu ñuy nuyoo parasanté la sëriñ bi sëriñ bi naa kii diwa kii nga ma tuddee kii nangam nangam bind ca bopp ba ña laay tëfli ca pour bëgg rek doom ji moo ko rupp comme bàyyi ko am na ñu ko jar nag am na ñu jar jël sa doom yóbbu jël sa bopp yóbbu jël sa doom yóbbu waaye am na ñu ko jarul de bu leen sant yi nax de bu leen sant yi nax de bu sant yi nax de am na ñu ko jarul de am na ñoo xam ne la ngay wuti bàyyi nga ña ko xam fii ci Louga bàyyi nga ko feneen ñu sant neneen waaye yaay xool rek lii mujj de ñu ci baree bare seen ànd lii ciy mujj képp koo àndal mu lay wan yonent bi di la wax yàlla bul tàqali koog moom bu julli jotee mu julli loola woor jot mu woor loola ah bàyyi la ak la nga yor waaw waaw bàyyi woo ma ak la nga yor bàyyi woo sama doom ak la mu yor bàyyi woo ak li ma yor bàyyi woo sama jabar ak la mu yor ah yow kañ nga may may jàmm xale yi na ni ñëw waaw xale yi kay daanu ñëw ndax da bëgg ñu mokk comme seeni baay bala ngaa faatu nga boole sa doom ak doo ay doomam ñoom hmm. ah ba kañ nee naa leen am nañu ko jar wax naa leen am nañu ko jar am na ñoo xam ne jar na nga takk say doom jox leen ndax xam nga nit ñii ñu baax lañu ay boroomi xam-xam lañu ay jaamukatu yàlla lañu waaye dóor kat te dóorkat yi ca bari xam nañu ni ñuy dóoree nit moom ba mu mokk ngunum ngunum tëf rek ci sa bopp bi wala si nga nooy nepp waaw ah bu la jëmee ci yàlla jar na ko de kum naqare nag yaa jëmewul nit ñi ci yàlla loolu moom maa toog fii di ko wax am nay dóor am nay dóor bu leen sant yi naxit maa toog fii di ko wax ndax sant woo gis ka tax ñuy màggal sant wa lam ca waroon a def lépp def na ko ca li sëñ bi dafa ñëw suba tuuti di nga taxawal wata bi. Hmm. ah wax yàlla dëkk yooyu da jëw yàpp ay ganaar ñi ñu ko dee xam ji dafa commencé <laughs> te gerte bi ci mi ji ngi teqal waaye kooku a bu ak béy bu ak

am àddiya baax na trop jël sa àddiya seet ki nga xam ni maanaam jël jël sa alal seet ki nga xam ne da nga ko koo jox ngir yàlla mu jël ko ngir yàlla kooku yaa ko moom yaa moom mi ngi mel na nga jël sa alal mayoon keneen nga jël sa alal seet sëriñ bu la neex nga jox ko ko te yàlla rek tax kooku mi ngi mel na nga jëloon sa alal seet ku sëriñ nga jox ko ko nam ko lewe moom moom sëriñ bi itam alal ji nga ko jox noonu la ko lewe waaye nag dañuy bañ mu incarné ko ci diine maanaam incarné ko ci diine mel na farata la mel na force la nga organiser ko taxawal ko duwal ko ci diine di ko foqar ci jom man damay lànk am na benn sëriñ bu ma toog bu yor sama kurusu xaalis gu rafet rafet sama kurus xaalis la guñ ma mayoon booba nag laa gën a nekk ndaw sëñ bi ne waaw kurus gi moom eh, baax na di ma bëgg koo jox sëñ Maodo ne sëñ Maodo ni pëfit kurus gi daal koy tegaat sama kanam ni ma bëgg ko jox ci kanamu sëriñ bi daal di fas kanamam ni jeel man tam ma téyewaat saa kurus comme saab sëriñ laa ànd ak ñëw ci sëriñ bi moom naa faf jëfandikoo sëriñ bi ma gën a miim miin ay kàddoom rek ak sëriñ bi ba ma ak sama kurus ah joxe dama baax na waaye nag boo joxee sëriñ bi dara fekk sa yaay yi téewoo ko de te joxoo ko ko nga jox sëriñ bi dara fekk sa baay yittewoo ko te joxoo ko ko nga jox sëriñ bi dara te sa doom yittewoo ko joxoo ko ko waras naa seet say mbir yeew ponkalu nag wala ponkalum xar yóbbu te sa baay tëbaskiwu loolu nag gaa doo fa tuñ ko léegi gaa yi ñu ngi yeewal xar yi sëriñ si waaye ñu ngi yeewal seen waajur yi moom looloo moom dara nekku ci nag wax dëgg yàlla jox sëriñ bi sa alal ta mu lew la doom nga jox ko ko ci yoon nga jox ko ko ci yoon mu jël ko lew na ko doom mu de waaye nag bu mu ko du bu mu ko def ci lislaam rek de daa ni moom daal defe ni farata la dañ ko ko war a jox a ah, te moom jaaralewul ñi koy jox yoon loolu moom bu boobaa day xaraam kama tabarrawa min naa kasaalika naka noonu ñu gisee mbugal ma yurihim noonu la leen wane allah yàlla amaalum seen jëf ya xasaraati ñuy way réccu alim ci ñoom yàlla ne wa maam déen ñoom bi xaari ji ne ñu way génn mi na naari ci safara ñoom ña doon toppee ak ña ñu doon topp ca meloyu kaan yii ma wax yàlla ne yaayu la si naa amano e yaayu annaasu bokk e yéen nit ñi ku loo lekk leen mi maa ca tukkee ca lenn la nga xam ne din mi ngi ci suuf si xalaalan mbirum nekk muy lu dagan tayiban mbirum nekk muy lu teey waaye walaa tataaboo bu leen topp xutuwaati saytaani ñelli saytaani yi noonu na ko moom saytaane aduwun noonu la mu biinun bu di aji bir jing nooneel làkkum ñeel leen saytaane moomu innama xam leen ni xamal ni kum dana leen digal moom saytaane bi suu i ci luy waraluk bàkkaar wal fasaay ak ñaaw téef wa an taqooloo ak dana leen waral itam ngeen di wax alalaay ci yàlla maa loo xam ne laa taalamuuna xamu leen ca darra mooy ngeen di xaraamal loo xam ne xaraamul wala ngeen di daganal lu xaraam way saa xëy la waxeem na lahum ñeel yéefari ñi nañu topp leen maa la nga xam ne ansala wàccee na ko allahu yàlla te mooy wéetal yàlla ak jëf lu teey lekk lu teey xaaloo ñu ni bal déedéet nun daal xam nga ku ñu toppa na tabewu daanu topp maa la nga xam ne alfay naa fekkoon nanu aabaana sunu baay àllihi ca topp loola yàlla ni leen amoon ndax da di topp loola walaw kaana doonte nekk na abaahum seen baay bàyya laa yaqiloona xeluwuñu say an dara ci mbirum diine xamuñu ko ca da ngeen leen di topp walaa yahtadoona te seen baay yooyu jubuñu woon wa masalu lasina misaalum gaañ a nga xam ne kafaroo weddi nañ nga xam ne ñoo leen di woo ci njub ka masali lasi day mel na misaalum ka nga xam yan yequ day ngiiru rek day ngiiru di ŋaax bi maa ca ne laa yasmaw du dégg ilaa doaan lu woote lu dul ñi woote wane daan ak woote ca baat mel na ngay woo koo xam ne bàyyi ma nga dégg baat ba di jóg te doo dégg la muy wax ñoom ñi nga xam ne ñooy woote ak ña ñañuy woo noona la mel jéemu ñoo dégg dara ca la nga xam ne way woote ña ngi koy woote su mun tëx lànk bañ a dégg dëgg bu ku mun woy lu lañu lànk bañ a wax dëgg um yun woy gumba lañu lànk bañ a gis dëgg kon fu su mun fahum laa yaqiloona summun way tëx lañu fahum te mbir mu ñoom laa yàqiloona nanguwuñoo déggu dëgg bukku mun way lu lañu fahum ñoom laa yàqiloona nanguwuñoo wax dëgg om yun way gumba lañu fahum ñoom laa yàqiloona nanguwuñoo gis dëgg yàlla ne yaayoo le si na amano yéen gaa nga xam ne gëm ngeen ma ku loo lekk leen min tey baatimaa ci lu lew lu teey la nga xam rasax naa kum ñun yàlla noo leen ko wër sa gël yàlla wax na de lekk leen lu teey li nga xam ne nun yàlla noo leen ko wërsëgal su ngeen ko lekkee ba pare waskuroo na ngeen sant li laay ñeel yàlla in kuntum dem nekk ngeen taabudoona di jaamu iyaahu yàlla moom in kuntum dem nekk ngeen iyaahu moom képp rekk dong taabudoona ngeen koy jaamu bu dee yàlla ngeen di jaamu te muy dëgg ci yéen waaye lekk leen lu tey ngeen yam ca su ngeen paree ngeen sant yàlla yàlla ne na xamal ni xarama araamal na moom yàlla aleykum ci yéen almaytata médd ma médd ma yàlla araamal na ko ci yéen wa damma ak deret ja boo rendee deret jooju di puuf di génn yàlla araamal na ko ci yéen wa laamal xinsiiri wa araamal na moom yàlla ci yéen laamal xinsiiri yàpp mbaam xuux wa maa ak yàpp wa nga xam ne oxii jëmaleef na ko ci yéen ma aska naleef nas ko rendeef na bii ci yàpp woowu li xayri laay ci lu dul tudd tur yàlla fa ma ne tura képp koo xam dafa lor nag xayra baaxen te nekkul di aji bew génnug jullit walla aadi nekkul di aji jëlgati fa laa es ma déet benn bàkkaar alihi di nekk ci lekk lii ma tere ndax ina laa naka yàlla xafuurun jéggalaa kon rahimun yërëmaa kon yàlla nee na yii ma araamal yépp nag yii ma wax yépp dafa xaraam waaye boo xoolee ci science mboolem yàpp yi yàlla xaraamal ak soow yi mu xaraamal dañoo mënewul ak doomu aadama boo ko lekkee dalay lor yàlla bañ na nga loru tax mu xaraamal yàpp mbaam xuux ndax xam ngeen ni am na ca yuy dox ci biir yàpp wa yoo xam ne day mel na ay sax yu ndaw a ndaw di dund ci biir di ay microbe te microbe ñett la am na microbe boo xam ne safara naaj da koy lakk am microbe boo xam ne safara danga ko lakk mu dee am microbe boo xam ne safara mënu koo rey te microbe bi safara mënut a rey mooy daw ci mbaam xuux yàlla xaraamal ko deret jooju di puuf microbe la yoo xam ni buñ ko rendee boo rendee gàtt bi deret jiy génn mooy microbe yi nga xam ne moo nekkoon di daw ci biir gàtt bi yépp deret jooju lay àndal génn moo tax yàlla ne deret jooju xaraam yàlla nag ni su fekkee nag danga dem ba nar a loru gis am médd ci àll bi nga nar a loru da ngay dagg ci medd mi lekk ba regg dagg ci yóbbaale soo demee nag ba gis leneen loo mën a lekk loola day daal di xaraam ca saas da nga koy wacc ina la si naka gaañe nga xam ne yàgg tumoo na ña ngay nëbb maa la nga xam ne am sala wàccee na ko allahu yàlla minal kitaabi ci téere ba di tawraat di melo muhammad wayastaro na ñuy jënde bi ca weccee googee nëbb googee ñu koy nëbb samanan njëg leen ku ko jarul ulaaka yooyu la gaay bu ñu lekkee njëggam man la leen leer ne maa yaakuloona ñu ñoom fi bu toonim ci seen biir biir ya illa naara lu dul safara ba tey ñuy nëbbu alquran di ko firee nu dul noonu di ca wax lu dul loola ngir duufal seeni poos lan leen ca jox ñu koy lekk dafay mel na safara la ndax loola dana leen yóbbu safara wala yukallimuhum du wax ak ñoom allahu yàlla yowmal xiyaam di bis pénc ndax sànja goo jóge ci moom ñëw ci ñoom wala yu sàkkihim yàlla du leen jéem a laabal ji du leen laabal jële leen ci ay bàkkaar wala hum dana leen ñeel asaabun mbugal alimun bu tarta metti mooy dem safara ulaayka yooyu la gaay àll si ne mooy gaañ nga xam ne istaraw jënde woon nañu addalaalata réer ga bil uddaa ci njub ga wal asaaba ñu jënde mbugal ma bil maxfirata ca njëggal ga yàlla nee na ay waay ñii ñoo ñeme safara saalika lekk googu safara di leen lakk di leen lekk bi ànd laa naka yàlla mooy nasala dafa wàccee alkitaaba téere ba bil xàq ca dëgg ga way na la si ne naka gaaña nga xam ne ixtilafa wuute nañu fil kitaabi ci téere ba mooy yahuut yi ñii ni mooy mokkaalekat yi lu ci mën a xew ñoom ñooñu wuute ci biir tiiri bi gannaaw ban jàngee tiiri bi ñoom la fi shiqaaxin ñi ngi ci juuyoo ñi ngi ci wuute bàyyi din wuute gu di aji sori dëgg su ko defee gars yi ngeen baal ma àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah jërëjëf sëñ Cheikh ñu ngi baay boobu baay Moussa ak mag ñi fi teew ñëpp xam nga sunu mag ñi moom bu leen gisee sunu xel day dal ndax ndeysaan mënutuñu dara waaye gis nga dañuy soox ñëw ah Baye Moussa xam na ni lii ci ayam la lii ci xéewalam la muy ñëw buñ ko jisee dañuy ñaan yàlla rek at mu nekk muy gën a man xam naa di gën a magee di gën a man dana jaaxal nit ñi waaye yàlla man na di gën a mageel ba pare di gën a jox kàttan yàlla man na ko yàlla na ko defal suñu mag ñi ñëpp ñu ngi kontaan ci professeur yi fi teew ak ñoom Cissé ak professeur euh, Diop Bamba mi ngi fii ak preuve sunu sunu doyen sunu kilifa sëñ xalifa ja professeur ak aima yi fi nekk yëpp ak mag ñi ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp léegi nag laaj bi dem place bu ngay liggéeyee ñu lay jaayloo sàngara sàngara moom ñàkk sa liggéey moo gën ñàkk sa àjjana ñàkk liggéey bi moo gën ñàkk àjjana te sàngara ki ciy liggéeye ka koy jaay ak ka koy nal ak ka koy sedd gi yépp ñoo bokk àtte kon kay moom mooyey lànk mooyey bañ te bu bañee sàngara sax ba tax mu ñàkk liggéeyam yàlla dana ko jox liggéey bu gën liggéeyu sàngara moo tax loolu mu def noonu la waaw mënees na koo julli de waaye ndax salaatu yi léegi moom mi ngi noonu fu waxtu wa jotee rek fajar fu mu jotee rek mën nga koo julli problème bi mooy ndax salaatu gi fajar jot na wala jot ndax salaatu gaa yi moom mooy loolu bu ko leeree ne fajar jot na daal doonte lee moom julleeguñu déggagul ñu salaatu itam mën na koo julli waaw mënees na koo julli bu dee salaatu bi am na yoon moom mën naa julli ñaari rakkay fajar la tudd waaye day fekk fajar jot bu dee yeneen rakka la la koo julli te fajar jotagul nag moom dafa naafi la fajaram waaye fajar moom ñaari rakkay fajar salaatul fajiri la tudd bokkut ak salaatu suppi moom fajar bu jotee rek mën na koo julli waaye bu mu baase ci salaatu de salaatu yi moom mooy lool sunu gars yi nag sunu jumaa ji ñoom dañuy salaatu yoon de sunu jumaa ji moom ñuy salaatu moom baax na sunu laa xam nag. moom it la koy fay muy laaj ndax mu koy fay liggéey ndax lew bu dee la mu fay liggéey bu lewee yoonam nekkul ci waaju fu mu jëlee alalam. ak fu mu koy faye moom na liggéey liggéeyam bu lew rek ndax bu doon fa mu koy jëlee lew na te la mu fay liggéey lewul itam la ko waaj a jox lewul liggéey bi muy liggéey moom lew na bi muy liggéeyal waa ji lew na yoonam bu mu nekk ci fu waa ji faye fu mu jëlee xaalis ci maandu sax la bokk luñt gi muy lunt ba xam ne waa ji fii la ko jëlee fee la koy faye loolu sax moo dagan waaye moo jëkkëram do dara nekku ca dara nekku ca beneen góor ne moom jigéenam doo nga sàbbaal na ko na ko subhaanallah ba mu neex mu defar julleem te dem yoonam <laughs> dara nekku ca léegi ci même jigéen ci nee na bi ñu rukkooyee nee na julli ba ñu rukkoo mu dégg jàkk ñuy nodd wax euh, tuddi baatu yonent bi mu wax ci biir julli gi sallallahu alayhi wa sallam muy laaj loolu ndax loolu xéewal la loolu yërmandi la loolu barke la boo demee ci Laxdari wax na ko ku dégg turu yonent yàlla Muhammad wa man sama sikra Muhammadin sallallahu alayhi wa fa salla alayhi fala boo déggee turu yonent bi ci biir julli nga julli ci turu yonent bi fekk yaa ngi ci biir julli dara nekku ci bàjjo ba dafa yaatu boo laabee di julli yàlla nangu nga am sobe di julli yàlla nangu loo mën a def foo mën a nekk di julli rek yàlla di ko nangu lenn rek moo ci erreur mooy nga jàpp ni julli gi ngay julli yonent bi moom yonent bi lay jëriñ comme ni nga naan allahuma dégg naa benn waaye ni bi sax dañ koy ñaanal dëgg la waaye dañ koy ñaanal pour jariñoo ñaan mais bu dee da ngay jàpp ni danga koy ñaanal pour yonent bi jariñoo ko yàqu nga salaatu bi da lay yàq amatoo ci tuyaaba yàqu nga alku nga da ngay jàpp ni ñaan bi ci lay dellu si waaye bul jàpp ni allahuma yow buur salli yàlla nga dooli xew ala sayidina ci suñu sang ba muhammad ti yàlla muhammad wa sallim te nga dooli ko mucc musal ko te nga nga yaakaar ne loola ñaan goog nga ñaan ci moom lay jariñ ñaan maanaam salaatu ba day waññeeku yàq la waaye jëriñoo tuucam tabarakallah nee na dafa ànd ak soxnaam sëy nañu fukki at ak ñett yàlla mu ngi leen bant bi loolu dafay jamono dox ñuy faj ba mu wëlbatiku jël ñaareel léegi nag problème bi nee na dafa war a am rendez-vous léegi bi mu amee war a am rendez le 31 mars bi léegi médecin médecin bi ni booy ñëw ñeenti fan avant ngay agsi bul seet ak sa soxla dara léegi nag boo ñëwee dana am boîte boo xam ne moom lañ lay jox dañu fexe ba nga def ci sa man nii léegi man nii boobu nag du jugee ci sëy maanaam boo sëy du jugee ci sëy hmm? waaw da nga fexe ba sa man léegi nag moom problème mooy benn dafa nekk ci koor ñaar ndax lislaam dana daganal mu fexe ba man ñu génn maanaam mu foo boppam ba man ñu génn wala bopp ndax day ànd ak soxna ñu foo ba man génn léegi nag question boobu lay laaj ba xam lu ko cay fekk ndax li ci des nee na rendez-vous bi rendez-vous bi dafa jafe rendez-vous bi mu war a am rendez bu jafe lay moo tax bii bu ko rëccee bala ma koo amaat na yàgg ndax ba mu ko déposé yàgg na deux mois ci ginnaaw muy soog ak léegi nag day laaj boobu Mhm. baax na li mu war a def de mooy euh, dem ca rendez ba dafa am ci biir laaj bi dafa am ci biir ay code ndax kot bi benn bu njëkk mooy nee na mi ngi ci koor te koor boo fawee sa bopp walla nga def dara ci weeru koor fekk yaa ngi woor ba mànn yu génn ci yow dangay ngay fay bis ba kafaara te moom loola lañ koy laaj su fekkente ni bii ne dangaa nekk ci sa bopp wala ngay seetaan loo te seetaan ba am lu génn ci yow lu bokkut ak maam rakku maan yu génn ci yaw xam ngeen ni ma wax loola bu génnee ci yow moom dangay dangay da ngay fay bis boobu waaye doo kafaar waaye problème bi mooy foo gi muy bu dem gi muy dem di nekk ak boppam ba loola di génn. benn koor gi mu tudd alxuraan nee na bu ngeen dee tukki in kuntum marda aw ala safarin lu ca topp fa min ayaami kon day tukki alxuraan nee na bu ngeen dee tukki walla ngeen feebar na ngeen ko bàyyi koor gi ba beneen jamono te moom daa feebar muy benn bi ci day tukki ndax nee na Dakar la jëm kon moom woor wàcc na ko taku ku Dakar waaw bu fekkente mi day tukki tukki bo xamanteni mi comme jogelu ga jëm Dakar coono bi am ci tukki moo yalla ni in kuntum marda wala safari, waaw ba pare tukki bi baña nek na tukki moy tukki def sa al bop rek su boba mu alquran da ngay day bañ legi nak kon mom tukki bi may nako mu baña wor. te su wóoru mën naa génnee lañ ko laaj ndox moomu ñu ko laaj mën na koo génne mais ci ban anam la koy génnee su fekkente ni bi am a nga fi waaye dama ni baag kay moo gën a gaaw ci génnee ndox ah ka ko daan génnee ci biir kay mën na koo génnee ngeen demee Dakar kon kay na ànd ak soxna si dem Dakar bu ànd ak soxna si dem dakaar ñu bàyyi leen ñu wéet soxna sa moom ak moom xam nañu nu ñuy def ba mu génn kon loolaay la war kon na ànd ak soxna sa dem Dakar pour maanaam mu war a jëfal boppam ba loola war a génn da doon fekk amul ku ko mën a génnee waaye bu amee ku ko mën a génneel moom mu génneel ko boppam araam la moom la alxuraan naan fa man ibtaxa wara asalika fa ulaika humul aaduun boo demee ca sarxaba boo ko liiree nee na mooy ñi fooyee seen bopp bara saalik mooy ñi fooyee seen bopp su fekkente ni biiri na soxna si daa amul woon te nu soxla ndox mooma te loolaay tax mu faju ad daruraatu tubbiwul maxsuuraat lor yi nga xam ne dal nga koo tere woon lor yooya day dem ba yàgg mu dagana lañ la tere woon lol la docteur soxna dang nga docteur bi lam soxla lol nga kay jox loola loro ko waral faju ta faju farata la faju farata la kon nak mom ma nga fa koor gi man nako bayyi dem waye nang na jël soxnaam bale bu demee ham xam nan lañuy def ba jox len la bañ jox docteur bi lam soxla lol dal moy mbir waaw. jërëjëf ngeen baal ma àq Yeah. Allah